Aly Niane xam nga ko. waaw Aly Niane Aly Niane. ca daf ko ni. jamono ji ñu toll de. jamono ji ñu toll day boo ci dee gis ku mel ne Serigne Fallou. boo ci dee gis ku mel ne Serigne Fallou. boo ci dee wut ku mel na Serigne boo ci dee wut ku mel ne Serigne Fallou. doo ko gis doo ko gis. mu ni gor la. mu ni Serigne Fallou gor la. kilifa la kilifa la. jaamu yàlla bu jaamu yàlla bu baax la. man ko lu tax man ko lu tax. daf la defal dara. daf laa defal dara. munuma waaw munuma waaw. munuma alxames bu ne. munuma alxames bu ne. danaa dem danaa dem. ni ko sama jabar wasin na ni ko sama jabar wasin na. alxames sama jabar wasin na biig. sama jabar wasin na biig. mu jox ma xaalis mu jox ma xaalis. jox ma ceeb jox ma ceeb. jox ma dugub bu alxames dellu bu see. ma ni dellu si ma dellu si ni ko wasinaat waaye nee na su ma ko joxee rek. nee waaye bu nee bu moom Aliou Niane bu ko waxee sëñ Fallou rek. mu daal di may jox. ma am ak moom nag lu tollu ci ñaari at rus nak dal ni ku bax ñu ni nak wo sama dom wo sama doom ni ko man kat dama bëgg a seeti sa baay fàllu te bëgg ñu ànd bu ñu demee nag dama naan yow la ko tudde man su ma nee nang ma ni mbàkke xale bi ni waw gor gi xey ci ci kër gi fu woy xale bi rek xale bi ni Mbàkke mu ni kii mbaa du rëcc mu daal di ànd ak moom dem ca saalu sëñ Fallu ñu toog di waxtaan di waxtaan ba mu yàgg mu ni Fallu doom ji ni pat mu ni moo Fallu doom ji pat waaye kii xanaa du Fallu yàlla waxal mu nga man Fallu tuddal Fallou ba génn rek. waaye tuddal Fallou ba génn rek. mais mais mais kooku kooku kan moo gën baax ci àdduna ah. wàllu ndeyam mooy wàllu yaari maamam sëriñ Fallou baayu meen walu ndey mooy walu yaari maamam ndeyam ay baayam baayam ay nijaayam sëñ Fallou bàyyi mbéy feñ na ko. nee moom sëñ Fallou yëngal na sax ku dul moom mi nee te wax ni. ku am xikma. am nga loo xam ni. mënuloo ko jàngi fenn. te moom nag sëñ lu Mbàkke moom la amoon ne boo doon nettali ay mbiram da nga cay ree waaye lépp kéemtaan la dafa ni waa ji waa ji dafa ni ko dama bëgg nga ñaanal ma mun ko luy saajo mun ko damay jaay loo ci bëgg lu ma jaay rek mu jar mun ko loolu rek laa jàngoon nag googi ñaan moom rek laa jàng tàllalal waaja tàllal muniko, ni ko jaayal lu ñëpp bëgg jaayal lu ñëpp bëgg te wax njëg gu ñëpp mën loo jaay mu jar seetal li seetal kii wax waaw ak tabaarakallah tabaarakallah yooyu yëpp na yooyu yëpp nag. ay jaar jaar la jaar la yoo xam ni. xew na fi xew mag ñi mag ñi. ñu di ko nettali ñu ñu war caa roy. ñu war caa roy.